jëm ak Dissa Préra foofa ca sous préfecture ba euh, foofa itam Dissa lan nga ñu ci mën a wax ndax kandidaa yi ñi ngi ñëw pour déposé si seen ay dossiers ak fan lañ ci tool toll. jërëjëf euh, Pape Ngagne jamono ji ñuy àddu fi mu toll nii ki ki nga xam ne moom moom lañ doon waxal muy candidat bi nga xam ne moo doon euh, dugal léegi dossier mooy Birane Ngom Birane Ngom nag ku ko xam ne xam ne mooy rakk la ci Farba Ngom moom nag mu ngi ànd mu ngi dem ci bannière bi ñuy wax ëllëg Sénégal moom nag mu ngi compétir pour mairie bu jëppal dakle waaye laata Birane Ngom am nañ keneen ku tudd Sadikh Bey Sadikh xam nga ko euh, Pape Ngagne moom mooy directeur général bu port de Dakar moom tamit jóge na léegi euh, déposé li nga xam ne moom mooy liste euh, xam ne moom mooy liste listam ku dem ci waa élection yi te moom listam nag mooy bokk yaakaar ñooñu pour waa ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, waa jëppal euh, Derklé la waaye yemul foofu sànq rek euh, ñu ngi ñuy xam ne que Zahra Iyane Thiam moom tamit jaar na fi bu déposé dossier am pour Sicap Liberté moom tamit fi mu toll nii nag Babacar Mbengue maire sortant bu Hann Bel-Air moom moo nekk ci biir am na ku ñuy wax également Mohamed Djibril Wade du maire sortant bu Biscuiterie moom tamit pour di compétir su bannière Wallu Sénégal moom tamit mu ngi ci biir di déposé dossier am am na keneen également ko xam ne moo doon troisième euh, adjoint au maire de Sicap Liberté ñu koy wax Cheikh Ndiaye ci Ndiaye nag moom ab coalition la la coalition mu ko investir moom tamit léegi la génn euh, ci li nga xam ne mooy sous-préfecture bu nga xam ne mooy bu Grand Dakar li ñu mën wax daal pam nga euh, ci ci tënk mooy nit ñaa ngi ñëw nit ñaa ngi dem am na ñuy déposé amagul benn problème bu majeur bu nga xam ne que remarqué nañ ko fii li ñu mën wax mooy am na dispositif de sécurité bu doy bëriwul nag ay journaliste ñu si si bëri ay militant lañu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy accompagner ñi nga xam def dépôt de liste yi si biir nag deux personnes rek le policier yi autorisé ñu dugg euh, pour def li nga xam ne mooy dépôt liste yi euh, daal dëpp sànq nag li ñu beneen li ñu wax mooy courant bi woon ci biir sous-préfecture bi euh, amoon na lumière boo xam ne doon na permettre ñi nga xam ne ñu ngi si biir ñu ngi liggéey fam ngañ ci tënk loolu mooy xewee gum fii li nga xam ne mooy sous-préfecture bu Grand Dakar nga xam ne ñu bëri ci waa Dakaru ci euh, wala bu ñuy compétir ci élection euh, municipale yi euh, wala ak locale yi ci ci la ñu war a posé seen ay liste. jërëjëf di saprera ñu leen di masawu coono waxtu bi nga nekk foofu waaye c'est important aussi pour askanu Sénégal.